son excellence Macky Sall mi ñu yabal def mu denk ma njiitu délégation bi ma ànd ci ak le ministre Samba Ndiobène Ka mi suñu borom def mu yoré agriculture dëkk fii ci région de Louga gouverneur de la région terre ñu préfet du département de Kébémer ak sous-préfet bi nga xam ni administration territoriale bu notre région Louga Nous ñu ñëw M. fekk maire, monsieur le maire mais surtout M. monsieur le ministre des collectivités territoriales mujj jaañ fada sëñ bi nag léeg lekk wax dana jafe parce que waxal kilifa nekkul lu yomb donc damay ñaan suñu borom rek ah yann bu ma gàkk ci wax ci bu gàkk amee rek xamal ni man maa waaye yéene bi weesu na loolu ci turu président di yëkkati nuyoo ak ziar di ko teg ci loxo xalif général des mourides jottali ko tekk ko sa loxo yow nga jox ko borom daaru mu jox ko sëñ Muntaxa xalif général de murit di ko ñaanal wér-gu-yaram ak fan yu gudd gudd gudd suñu borom bàyyi ko suñu kanam lu yàgg-yàgg di dellusi aussi di nuyu ah xalif daaru moxti muy sëriñ Bassirou Anta ñang Mbacké ku baax ci taxawaayam di ko ñaanal aussi wér-gu-yaram ak fan yu gudd sëriñ Bass yow yaakaar naa ni ba ñu suñu borom boole du léegi yàgg na ca njëlbéen boobu président Macky Sall mi ngi soog a si mu dénk ma hydraulique su ñu dajee Touba même ci màggal bi da nga jël kàddu

Khalid Mbake ci kër gi waye di ci bolé borom ñëpp di leen sant bu baax di aussi chef de village parce que chef de village manam prolongement wu maire bi la di ko nuyu di baax sëriñ bi parce que le président de la république mais aussi kàddu ñaan la ah nguuru yàlla dong ma du jeex nguur yàlla dong ma du jeex président Macky Sall suñu dénk na ko Sénégal depuis 2012 ba ndëgg ni si ñuy wax ak yéen dégg ngeen démb ba mu nekkee ci dialogue bi mu ni bu neexee yàlla de 2 avril maanaam mission dana jeex. xam nga ku ñu denk mbubb xam ne sa mission lu mu yàgg yàgg yàgg dana jeex waaye mission sëriñ nag lu jeex parce que say man gëm naa ni yàgg nga fiy teeru ay ministre di fiy ñëw di présider maanaam cérémonie bii xëy na déwén keneen mooy ñëw te di la ñaanal yow wér-gu-yaram ak gudd fan te gëm naa ni keneen kuy ñëw aussi dëwan yaa koy teeru fii leeg ñaari at fii leeg ñetti at fii juróomi at yal na ko suñu borom def nga ni teeru toujours donc xamuñu keneen kuy ñëw yàlla rek a xam waaye pour wax rek ni boo nekkee ku mel ne président Macky Sall mu liggéey Sénégal ci fànn yëpp mu def ay liggéey ci famille religieuse yi fu nekk gis nañ ko fa mu def liguey ci askan bi fan bo jël ci askan bi def na fa au Sénégal bu 2012 ak Sénégal bu 2024 du il a fi Il Ila Touba Ila Touba bobu mu nek liguey solo bu a Ila Ndar day am ti Ila Ndar bobu bo il mer, un ex fi ci daru Muxti mu nek liguey yu am solo bo jele ci walum agriculture samo jeben kam mi ngi ni toog jéego yi mi ci def kenn munul wax nu tollu Modou jagne Fada mi amé collectivité territoriale ci lu mu liggéey ci gox yi ci ville yi ci département yi ci village yi fep ci Sénégal suma ko continuer du wax du waaye lu ñoo bëgg ñu ñaanal ko mooy jàmm mooy Sénégal boo xam ni ñëpp ànd nañu nekk benn mooy Sénégal bu nga xam ni ñë ku nekk bëgg na moromam mooy Sénégal bu nga xam ni ku nekk yéena na moromam lu baax te loolu mënuñu ko ñaanee fenn yu dul ci keppaar yi yéen ñu ngeen xam ne suñu borom may na leen ngeen mën a tàllal ñaan te mu teelu wuy si donc kaddu ñaan bobu mom lay jottali ngeen tek ci loxo serigne bi mu ñaanal Sénégal Sénégal Jam, Sénégal unité des cœurs Sénégal unité des esprits Sénégal de paix parce que Jam dong mo meuna tax Sénégal fi mu jublu mu mën fa yegg dong mo meun tax Sénégal bu ëllëgee suñu njaboot yi mën a ci dëkk dara du ko dëkk boo xam ni amul benn menace bu jege à l'extérieur ñëw war a déstabiliser Sénégal ginnaaw suñu ànd suñu pas-pas ñaan moo ko mën a motali te fii nag laa koy waxee ci bés bi nga xam ni mooy bésu borom daaru bés bi nga xam ni mooy weeru baraxlu su ñu weeru baraxlu mooy koor gi mi ngi ñëw muy weerum ñaan weerum dévotion weerum toroxlu bésum daaru bi toujours moo koy annoncé moo tax ñu am cee yaakaar ci ñaan yi nga xam ni maanaam tàllan nañ ko loxo suñu borom bu neexee yàlla dana ko mottali daaru nag ah ko léegi ah bu rëy la ci kullu màggal daaru mooy ñaareel màggal yu gën a rëy ci kullu morit du lu ndaw lu rëy la fii ñuy toll di wax Sénégal yëpp ñu ngi seetaan eh, te keroog premier ministre ñëw na fi jël na fi ay engagement ba mu fi jëlee ay engagement man mi ci sama wàll wax na ma ko te mu neexee yàlla lépp lu ci war daañ ko ci def incha allah rabbi parce que amul dara lu ñuy def du loo xam ne ndigalu président de la république la premier ministre exécuté ko jaarale ko suñu loxo. ñun ñu def ko te bu neexee yàlla engagement yooyu mu jël dana ko def parce que moo ñu war moo ñu fi tax a toog lépp loo xam ni da ngay indi maanaam saafara ci mbëbatu askan bi da ci xar sa tàng tubéy def ko parce que askan bi moo la fi teg ginnaaw suñu borom donc lépp loo xam ni maanaam engagement jël na ko bu neexee yàlla dañ ko def sëñ bi lu ci mujj parce que kaddu moom bu yàggee rek boo sàgganee mu yàqu dama yore. ben décret mu nek décret bo xamni da fay changer day jox darul muxti turam deug deug parce que wax nga deug bu ne daru musti parce que même président ko na laaj ndax daru musti la wala darul muxti la ken xamul won waye manam ci laaju khalif bu daaru muxti conseil municipal def délibération conseil municipal maire majorité signé délibération euh, sous préfet bi contre approuvé ko ministre bi nga collectivité territoriale muy Modou Diagne Fada xam nga suñu borom buy défar day rafet dana rafet té day yomb ci def luñu wax rapport de présentation rapport de présentation ci décret ci ngay teunké lan motax lu waral décret bi rapport de présentation boobule Modou jagn fadami mi moo signé décret bi président de la république signé ko muy décret bi nga xamni da fay changer tour bi genné Daru musti jox ko muy daarul muxti ku indi fii di la ko jox tey mooy meeru ndar mooy meeru ndar te sëñ bi léegi doon na fi wax léegi histoire ndar ak histoire sëriñ Touba suñ borom day defar rek nañuy ñaan suñu borom lii askan bi di xaar ci sëriñ bi ak ci sëriñ si muy lu baax muy liggéey parce que képp koo xam ku lu murit liggéey dong la ko xamee du leneen que le te liggéey boobule yan na suñu borom def Sénégal jël ci lu baax suñ borom aar Sénégal lii ñuy wax ci maanaam ay richesse yi ñëw ci Sénégal yan na suñu borom def mu nekk njëriñu askan bi. suñ borom bi def sénégalais yi jëlee ci seen njëriñ te bu ñu kenn rax bu ñu kenn yàqal te bu ñu kenn féwétle loolu nag sëñ basiru Abdou Khoudous teg nañ ko sa loxo nga jottali ko borom daaru mu jottali ko xalif général de sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di gërëm ñëpp dama doon jéem wax nag. waaye wax jafe na juum naa ci lu bari di jéggalu bu baax a baax jataay bi du jataay bu ndaw fii ma toog du lu ndaw yaakaar naa ni c'est la première fois ma toog ci jataay bu toll nii di si jël kàddu ci turu président de la république cër la nag mënoon a yebal Modou Diagne Fada mii bu jël kàddu gi du sax question préséance

waaye aussi di ko ñaanal njabootu Sénégal yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf